Fafa TV. alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa rahima wa baraka ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain mbokk yi gannaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey suñu xutba ay sew-sew la yu aju ci wàllu kilimaan kilimaan mooy fonction bi ilimaan mooy kii def fonction bi kilimaan nag mooy jëf ji muy jëf kon kilimaan muy jëfi imaam dafa am ay jubluwaay yuñ ci jublu amit ay wareef yu gàttu ci kaw kilimaan boobu kilimaan ñaari kilimaan boo am kilimaan boo xam ne ci lu baax lay dox di ca yëngu googu yonent yi ñoo ko jiite woon salawaatullaahi wa salaamu alayhi ajmaïn geneen kilimaan bi nag ci sofaan lay dox di ci yëngu googu iblis moo ko jiite ci la ñoom fa fi Firawna doon dox ak ñoom Namruud mboolem ñi nga xam ne ñoo doon tombee yonent yi daan leen sonal na loolu mooy sew-sew bi ñuy njëkk leeral moo di ne kilimaan ñaar la gii taxawal njub ak yiw ak mbaax moo ko tax a jóg di ci mag bu yiw ak njub ak mbaax moo ko tax a jóg ñaar yépp nag benn bu ci nekk laay wàcc bu dee ci ñi nga xam kilimaan ñi nga xam ne taxawal juba ko tax a jóg alquran wax na ci ne wa jaalnaahum beneen bi ne wa jaalnaa minhum a'immatan yahduuna bi amrina lii mu ci sóotu anbiya bale mu ci sóotu sajda mu ne ñii maa leen def ay yilimaan seen liggéey di la jaam ñi liggéey booba nag nee na sama ndigal moo ca wàcc bi ma naan ndigal borom bi tabaraka wa taala moo ca wàcc bi am ni nag beneen bi mu ne wa jaalnaahum aimma wa najaalahumul waarisiin nee na ñooñu maa leen def ay yilimaan def leen ñuy ñiy wuutu yonent bi salawaatullaahi wa salaamu alayhi ajmain ak yonent bi moo tax saa ñu la nee jàppal ne da ngaa wuutu yilimaan yi la fi jiitu woon ko ci suñu baay aadama ak yeneen bi yëpp salaatullahi wa salaamu alayhi ajmaïn ak ñoo seen gannaaw kon ñooñu nga wuutu boo xoolee ñaari laay yi kon ñooñu ay xeeti yilimaan lañ yoo xam ne laaya bi leeral ne ñoom ay waarisuuna lañu maanaam dañoo am ñu ñu wuutu nekkul ñu indépendant ña ñu wutu ay yonent lañu salawaatullaahi wa salaamu alayhi bi ki ci mujj moo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit nag buñ ne doo kuutaay nga xamal nañ ko ne ko doo aslu doo cosaan banqaas nga ci garab mag la fi jiitu woon nga ñëw bokk ci ay banqaasam kon ñëwoo fi pour indi fi lu bokk ci garab gi da ngaa ñëw bokk ci garab gi li taxaw na jóg garab gi doo nga la tax a jóg loolu moo tax ñu tuddee leen ay kuutaay beneen xeetu kilimaan bi nag mu ngi ko wàccee ci Firawna ak ay nitam suñ borom ne wa ja'alnaahum a'immatan waaye nag yad'uuna ila naar ñoom it def nañ leen ay kilimaan waaye seenu woote fa mu jëmee nit ne baaxul ndax sawara la yàlla ci àll musal ñooñu ñoom la ñuy tuddee ak immatul kufri yi nit warut leen a topp nit war na jaayante ñoom nit war na eh, dimbalante ñoom ca lañ bëgg a taxawal maanaam jullit boobu jullit war na jaayante ñoom yàlla mu topp leen. yellu mu dimbale leen ca leen la leen tax a jóg ndax la tax a jóg mooy sofaanu li la tax a jóg yow moo tax wuuteeg ñoom di lu war ñoom toog ñoom di lu war wuuteeg la ñoom toog ñoom lu war la jëm fa bëgg a jëm yow it nga ñoddi jëm fa nga bëgg a jëm loolu wareef la ci benn jullit muy wax jiw leen ne waxi buuroo buur waaw la sant wax loolu dafa yàqu ndax buur bu mel nii nga xam ne day woote te wooteem ci sawara la jëm ci dëgëral sa kàddum njub la jëm kàddum santul waaw kàddum lam sant mooy déet laa ilaha mu ngi tolloon nag nga santale kàddu waaw moo gën a neex moo gën a yomb waaye nag du ma def ci yow dañ la sant ne la déedéet bu kàddum sant waaw moom la woo ci lenn ca loolee mu bëgg a taxawal nga ne ko waaw déedéet saw yoon dafa war a leer comme ñoom ni ñuy leeralee seenu yoon wéet ca teewut la koo leeral ndax ku ci yàlla mosaat di yónni sallallahu alayhi wa mooy ne kenn lay doon wéet lool ci jamono waaye kenn sam ka du ko tee leeral la muy la am lu mu ci mën a fekk mu toggoo ko kon boo bëggee mat kuutaay ci ñooñu faaw nga ñemee wéet liñ la fi baal di ca woote loola ca fekk yi wéet nga toggoo gënoo leen a muus gënoo leen bu dee ngëneel ñoo gën bu dee xel bu sell te rafet ñoo la ko ëppale kon la muy tuddee mus ba yaakaar ne mën ngaa dundal li ngay ah te doo am benn coono ci li ngay dund loolu yaa ko tuddee muus waaye du muus alhamdulilah bu ko defee kon ñaari climat yaa ngi genn bu ci nekk nag day dox di yëngatu. aar li ko tax a jóg jébbal àdduna li ko tax a jóg aw yoonam pour kàddu feree kaw kàddu ka ca des pare suuf loolu mooy sew sew ñe- ñetteel maanaam climat bi ci nekk day dox pour aar ndonoom li mu doon ne ci ñi ko fi jiitu woon ndono loola faree kaw ndonol ña des loolu mooy doxu ñaari climat yi imaam al-Mawardi rahimahullahu tabaraka wa taala loolu la ko leerale daf ne al imaamatu mawduatun li xilaafi nubuwati fi xiraasati diini wa siyaasati dunia bi sa climat bi yow dañ ko dañ ko fee teg pour mu nekk wutaay ci ak yonent ci la aar diina jii nga fi fekk doxalee àdduna ci diine ci ndax leer na doxalee àdduna ci diine ci imaamul Juwayni imaamul Haramayn daal di wax ba mu dem ne al imaamatu riyaasatul daal bi kilimaan bii nga doon yow imaam kilimaan la bu global dafa mat sëkk màccu dara ñëwutit ak yu ci baadoolo bàyyi buur waaye déedéet dafa ñëw ngir buur beeg baadoolo bi ñoom ñëpp mu doxalal leen lañ bëgg a doxal ci yoonu diina kon su boobaa amul amul mag amul gune amul buur amul baadoolo amul sëriñ amul taalibe ñoom catégorie yi yëpp ci gannaaw diina lañ war a topp mu naan leen nii la du nii looloo waral nga gis climat ñu daal di koy jël def ko gu mag ak yu ndaw gu mag ak yu ndaw gu mag gi ci jamono yonentu yonent ko daal jiite sallallahu alayhi wa bu demee nag ba jógee fii ka jullit ña tànn comme niñ tànnoon Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Omar ibn Khattab ak ca des kooku mooy yu yonentu ci climat gu mag la su boobaa nag kilimaan yu ndaw yi yëpp topp ci kawam di ko déglu di ko dëgëral di ko doxalal ay bëgg-bëggam kilimaan yu ndaw yooyu nag dafa commencé ci kilimaan gi nit ci am ci moppam en tant que ba célibataire boo xam ne boppam dong la aw jubbam yow yaa wuutu xeet bi yëpp ci sa jubbu bi ak sa ak sa cër bi rek biti bi maanaam yaa war a góorgóorlu defar sa bopp biir ak biti ba sa lépp ñeer bi loolu kilif def bu ndaw la bu tuuti ci la tàmbalee daal di màcc nag jëm ca kër ya borom kër bu ci nekk yilimaan la ci biir këram dafa wuutu umma bi yépp yonent bi yépp ci la doxalal leen la yonent yi doon doxal ci seen biir kër yi ci biir këram kooku kilimaan bu ndaw la kenn ku nekk kon yilimaan la ci boppam boo demee ba am kër gi yilimaan ci seen kër yilimaan yooyu nag ci kër yi buñ dajaloo ca jàkka ya tànnaat beneen imaam ne ko ca kanam kooka mooy seen yilimaan warta doxal ci seen kanam lenn lu lay doon doxal sallallahu alayhi wa sallam dañu leen ci woo ñoom it nag wareef la ci ñoom ñu jàppale ko dëgëral ko ci ah bu ngeen ko xoolee itam ci geneen kilimaan nga noonu la la muy bëgg mooy nit ki doon yàllay boppam wutu seytaane ci kaw suuf ñu war ko ne ko déedéet sa volonté individuelle personnelle sa conviction personnelle la bu yàlla bu yënal bu diina la nga bëgg dox ca moo tax kilimaan yooyu buñ ñëwee du ñu dimbale nit ki ci njub waaye dañ koy dimbale ci la mu bëgg doonte sofanoo ak njub mooy la nga bëgg su faatoo njub ñu jàppale la ci soo bëggee naan ñu ñu la ko soo bëggee produire sàngara si muy naan ñu faciliter la ko njaaro sax boo ko bëggee ñu faciliter jigéen sax boo ko bëggee ñu faciliter la ko aar la ca boo bëggee doxal intérêt muy riba nga xam ne alalu askan wi ci lay yàqoo ñu aar la ca bu ko defee nag kon da gis ne ñaari climat yi bokkul bu day ñëw di la laaye biir naan la kat lii nga bëgg dëgg la bëgg nga ko sa wér gi yaram baaxul sa pas-pas baaxul sa diggante ak sa borom baaxul sa diggante yi kon ñaari climat yi bokkuñu comme bokk ñu nag dëgg-dëgg ñaari kilifa yi mënuñu ànd déedéet faaw kenn jiite ci ca bëgg ka ci des ñàkk yaakaar naa ci sew sew boobu dañuy taxawee tey ka ca des ñàkk bu ngeen seetloo nag tey yilimaan gi wuutu yonent kilimaan boo ko wuutu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ñàkk mën na koo doxalal diinaam ci quartier bi ndax dañ koo nax ba pouvoir ba waroon a mën a tere ka euh, digle ñu ne koy léegi jël ko nga jox ko gee mu nangu ko moom itam ba mu ko nangoo nag nga doonatu yilimaan ci di ngay ndax matatoo ko ñàkk nga ko matatoo ko comme nag su boobaa tuub nga ca war mooy ñun ñëpp ñu bokk tuub te xam ne erreur bu mag la ñu dellu si suñu fonction climat doxal ko ca na ko yeneen ñu doon doxalee salawaatullaahi wa salaamu alayhi wa ajmaïn li nag teggiwul kiy wax teggiwul kiy déglu teggiwul kenn jullit ñi yëpp lañu yàlla ñu yàlla def dëgg jullit allahumma salli wa sallim wa barik TV